jàkkaarloo bi ñu am mbégte ànd ceeg yéen euh, ñuy tàmbale kàddu njaal Charles ak euh, vraiment sa frère sa sa sa xarit boo xam ni ñàkk nga ko tey muy Birane Niang dëkk golf ñuy jaarale kon euh, jaale bi ci sa loxo di ko jébbal njabootam Birane Niang moomu gaañu tey ji doon kenn ci yow. di la koy dëgg der di la remercier bu baax a baax di di jaale euh, soxnaam Sabel yaay Sabel ak waa këram parce que mm-hmm. xarit la woon. Mm-hmm. mais rakk mm-hmm. rakk rakk lu lu bett la wante nag dañuy teg lépp si loxo yàlla. Euh, ñàkk loo xamante ne góor bu taxaw góoru dëggu. Euh, ñu doon waxtaan rek bërki dem si loo xamante ne si dëkk bi lu muy doxee ak dëgg bu loo xamante ne li mu war ne loolu tax. waaw je te remercie beaucoup pour parce que c'est beaucoup d'émotion massa massa Charles alors euh, ñu am mbégte ni may wax ànd ak euh, commissaire Cheikhna na nar nara waxtaanee visa yi nga xam ni euh, jamono ji moom la ñuy wax dinañ ko dellu seek dañ koy dellu si wala déet mais jàpp nañ ni day dellu si ndax kilifa bi information bi tukkee muy ministre de l'intérieur mun nañ jàpp ni ci RFM bi mu ko waxee démb mun nañ jàpp ni kon sori nañ ci Euh, ci waxtaan bi ñuy ànd ak euh, tamit Boubacar Ba. Euh, justiciable Birima Babacar Ba Boubacar Ba xam nga dafa bokk ci ñun tamit alors Birima c'est le retour. Ouais. Euh, balaa balaa balaa boobu yëpp dañuy euh, dem Touba ñeneen ñi jaruñu présenté jaruñu nuyu nuyu <laughs> miin ngeen leen euh, lañu jëm Touba alxames bi ñu dëgmal ñëpp xam nañ xew-xew bi ak màggal bi Pape Djibril Fall moom jiitu nañu fa Pape Djibril ñu ngi lay nuyu. Der maa ngi lay fay bu baax. di nuyu mbokk yi nekk ci plateau bi yëpp di nuyu sénégalais ñuy seetaan si biir réew mi ak si bitim réew. ah xew-xew bi ñu dëgmal rëy na lool macha allah alors naka déjà yow euh, naka lañ koy dundee foofu moment bi ak euh, groupe future Média naka la ci nar taxawee yow jiitu nga ñu fa yaay ambassadeur bi. Hmm. sant yàlla bu baax a baax euh, déploiement bu am solo. donc démb rek euh, délégation bu am solo bu groupe Futur Média ñëw na rencontré le xalif général des Mourides euh, daal di ginnaaw bi rencontré na tamit ki nga xamante ni moom mooy sëñ ba Bass Abdou Khadir feeñal yéene bi nga xamante ni am nañ ko ak euh, li nga xamante ni noonu lañ nar a accompagner événement bi nga xamante ni événement bu mag a mag la ci biir réew mi ñu koy dund ci biir Sénégal ci biir Afrique ak ci àdduna bi yëpp. donc euh, affluence bi effectivement commencé na dëkk bi moo ngi commencé euh, vivre au rythme du màggal depuis premier safar bi nga xamante ni màggaloon nañ ko fii nga xamante ni mooy ci Touba. kilifa yu bëri fekkee ko booba ba tey nag ba ñu teroo ba weeru safar bi tero ba tey ñoo ngi jàng ay xasaayit ci bara ci alxuraan kaamilu alxuraan yu takku ci barab yu fasantikoo ci biir réew mi ak ci bitim réew ak xasaayit yu takku takku tamit di ñaan sunu borom mu eggale ñu ci fi nga xamante ni moom mooy fukki fan ak juróom-ñett beneen événement bu particulier bi nga xamante ni am na Abdoulaye Der surtout tey mooy euh, ñëw bi nga xamante ni président de la république Macky Sall ñëw na fi Euh, daal di comme à l'accoutumée euh, pour sacrifier à la tradition ñëw na euh, daal di saafonte ak ki nga xamante ni moom mooy xalif général des Mourides indil ko li nga xamante ni moom mooy addiyam ak ziyaaram ci jëm ci màggal gi ànd tamit ak ay jëwriñam muy ministre yi rawatina ki nga xamante ni moom ministre de l'intérieur li tax moom mu nekk Euh, ci premier plan bi mooy euh, engagement yi nga xamante ni yëpp service yi jël nañ ko te moom moo nekk ki nga xamante ni moom moo ko war a saytu waaye bi mu agsee Touba tey dafa dem fi nga xamante ni moom mooy université euh, Cheikh Ahmadou Bamba bi nga xam ñoo ngi koy tabax fii ci Touba. université boobu nag euh, plus de trent 37 milliards de francs CFA la ñu wax ne moom lañ ci bëgg a def waaye président bi mu agsee tey dafa yéemu moom moom moo ko wax émerveillement la fi amee ndax nee na li nga xamante ni bëgg na ko ci ay gouvernement bëgg na ko ci ay ministre am tey dafa ñëw gis tuubaa jëmmal ko muy euh, muy fast track maanaam durée bi nga xamante ni ci lañ lancé li nga xamante ni moom mooy euh, université bi ak tey jii bi mu ñëwee ba gis fi travaux yi egg tey ak euh, ni nga xamante ni noonu la ko sëñ Cheikh ba Badawi expliqué projet bi moom daf ci yéemu ba wax ne euh, fast track bi nga xamante ni gis na ko muy ci diligence ak célérité ci travaux yi nga xamante ni travaux yu yu yu doy waar la parce que c'est un immense projet mu ne moom loolu daf ci yéemu doon loolu nekk lu am solo ba moom jël na engagement ne à travers son ministre Dame Diop bi nga xam moom moo yor formation professionnelle dina ñëw accompagner ci wàllu boobu. Euh, li nga xamante ni moom mooy université bi euh, leneen li nga xamante ni am na solo mooy ginnaaw bi ñëw na julli juma ak ki nga xamante ni moom mooy euh, sëñ Muntaxa mu fekkee julli juma bi ginnaaw bi def nañ benn cérémonie officielle boo xamante ni aussi jël na ci ay engagement yoo xamante ni bokk na ci électrification bokk na aussi ci assainissement ndaxte fii ñu jëm ñaari at yi ñu jëm màggal gi dafay coïncider ak li nga xamante ni moom mooy euh, nawet bi te loolu baax na ñu am ay disposi dispositifs yoo xamante ni yu exceptionnel lay nekk parce que densité bi nga xamante ni euh, Touba li muy jël ci nit li muy accueillir ci nit ci ci bés boobu dafay dafay aajowoo mu am dispositif bu exceptionnel pour permettre nit ñi ñu am ndox pour permettre nit ñi ñu am mobilité di dem ak ñëw te incha allah ak euh, groupe Futur Média ak télévision Futur Média particulièrement dinañ leen ci accompagner incha allah suba ci benn plateau boo xamante ni euh, muy la gendarmerie muy la police muy les sapeurs pompiers muy la comité d'organisation dinañ ci waxtaan bu baax a baax pour xool lan yan dispositif la ñuy jël ren pour permettre ni ñi encore une fois. ñu mën a am mobilité mais encore une fois nawet parce que ci nawet la ñu nekk te lu ne mën na xew taw mën na xew lu ne mën na xew nan la ñuy def ba pare à certaines éventualités ba nit ñi mën a màggal si ci jàmm dellu si ci jàmm te loolu fa ñuy fa nit ñi di bàyyeekoo di ñëw Touba bu ñëwee Touba ni ñu fay nekk ak bu ñuy ñëw dem di delluwaat donc liggéey bu mag a mag la boo xamante ni dafay mobiliser. Euh, service su état yu bari Abdoulaye Der yoo xamante ni dina dina dina tax euh, ñu mën a màggal ci tawféex. <coughs> alors Pape Djibril da ngay des ak ñun ndax euh, sujet bu njëkk bi xam naa foog nga bokk si ndax visa bi ñu nar a dellu waat Sénégal 2013 lañ ko njëkkoon a def 2015 ñaari at ñu dindi ko dafa nar a dellu siwaat xam naa léegi ci premier tour de table bi rek naa delluwaat Touba laaj la yow. Euh, donc euh, lan nga ciy xalaat waaye laata loolu ñu bañ a fàtte it euh, capitaine caam mi nga xam ni moom ca roplaan ba daan woon hélicoptère ba daan woon ca République Centrafrique mu mucc muccoon ci dafa mujj faatu ñàkk na ci bakkanam moom ñu koy wu l'armée bi ni nga ko defee ci ñett ñi njëkkoon faatu seen i njaboot njabootam moom capitaine Thiam ñu koy wu ak njaboot ga mu bokkoon di njabootu larme ñu ngi leen di massawu alors euh, màggal Touba bi euh, dégg ngeen Pape Djibril moom la ñuy balaa ñuy attaqué euh, thème bi alors Birima comme na moon nañ la ma dooree ci yow. Mhm. màggal Touba bi de xam naa ni kenn du la fa jiitu te ku la fa dëgg ne la massa nañ koy waxee. dem man dama am kër Touba bi mhm. yow ñëw nga sama kër. Mhm. Touba kay maa ngi invité ñëpp sama kër. boo sañoon ñiy màggal si sama kër la ñu dal. bu ma sañoon. loolu lu may am. wala ku fa ñëw rek naa la gis. xam nga ñun màggal Tuuba der ñun ñooy ñooy ñoo ñun ñun la yàlla may taw féex ak ndimbal ba ñuy recevoir ganu Sëriñ Tuuba yi loolu ndimbal la képp ku yàlla dimbali ba nga bokk ñuy recevoir gan ndax gan yi gani Sëriñ Tuuba lañ képp ku dem Tuuba rek Sëriñ Tuuba moom ndax ndigal Sëriñ Tuuba yi gën a wér yi fi bàyyi yi ndigal Sëriñ Tuuba yi xam te koo def xam nga def nga ndigal Sëriñ Tuuba màggal Tuuba ci la moom Sëriñ Tuuba ko digle kon képp yàlla may tow fex nag ganam yu tedd yooyu nga leen di nga leen di dalal loolu da sant yàlla mm. te xam ni màggal Tuubaa léeg-léeg tax la metti woon sëñ Tuubaa da ko gàddoon lu neex mu jox ñu ko mm. sëñ Tuubaa ñu gën a gore fop mm. alors Papis gore mm-hmm. wallaay sëñ Tuubaa baax la métti lépp da koo jël gàdd ko moom rek mm-hmm. kenn fekkee ko kenn dibliw ko mm-hmm. la neex lépp mu jox ñu ko ñun ñun jaamu yàlla yi sëñ Tuubaa baax. papis di nga bokk ci ñi ñi gane ji mbir ma xanaa. non non damay bañ xam nga keroog bi ñuy dem dindi nag comme yaram bi dafa xawoon susante ñëwuloo. waaw waaw dama dama ko raté mais je crois que je serai à Touba incha allah incha allah comme chaque année màggal yi ziar sëriñ bi ñaan ñaanal Sénégal ñaanal jàkkaarloo. Hmm. <laughs> ak euh, ñëpp ñi yeewoo Sénégal ak bitim réew. Bouba nooy waajee màggal bi dégg nga Pape Djibril a déjà la ferveur. dans la cité religieuse. ben oui euh, mais ah ma waay Birima waay Birima de retour gars yi dañ ma lay laaj rek <laughs> dem nga bañ a ñëw tey suba suba nga ñëw mais mënoo toog ay 2 3 mois. quand même ah, dafa dafa dafa voyagé da nga bokk nga bokk ci Sénégal gars yi dañ lay laaj dañ lay nam wax fa dëgg yàlla. waaw daal liggéey la ma dundee nag. waaw mais nga may ñu tuuti. waaw déedéet xam nga booba. jàkkaarloo ma woon wóor na ma maa gën a bëgg TFM maa la gën a bëgg. Hmm. loolu dama yàlla yàllaa ko def ci man jàkkaar dama ko jàpp comme doom ju ma jur su ma ñëw damay feebar bu nga xamoon su ma ñëw bu wax heure jotee may amee na ak <laughs> su ma ñëw rek daf maa dama dama ñàkk pexe dama dem dama dem États-Unis ñëw dem Brésil Brésil même waaw fa laa nekkoon dama dem États-Unis jóge fa ñëw euh, dem euh, Brésil birima Brésil am na benn benn plage nu mu tudd Copacabana ngay wax jàmm nga fa loolu yóbbu ma fa woon. non dama laaj ndax jaar nga ma fa rek la ah, waaw man dem woon Rio man ah, Sao Paulo laa dama doon laaj rek. Eh, jaar nga fa. non non man Sao Paulo laa demoon déw ma Rio de Janeiro. jaar man damaa liggéeyi laa demoon. waaw doon laajte rek biir moom jarul kii. boo insisté ci bañ de. dafay mel de. <laughs> damay nga di nga bar tànk. ah loolu kay mën na ñàkk mën non malheureusement démb. alors Bouba waaw man xam nga man démb maa mhm. euh, ah, benn benn ak sama. ndax su ndaw oto su ndaw soo mën a kii ga gànn euh, sëñ gànn mesere. mooy jàng sama kër jour màggal wax na ma ko donc. Euh, boobu sama jour màggal ci guddi gi. ku bëgg a seetaan gànn mesere sëñ gànn mesere ci màggal gi à part de 11 ñëwal sama kër fa lay jànge mhm. buñ ne suba la. bu ñu nee suba la ba ci guddi bu sura Samba fay nekk. waaw <laughs> ah, d'accord waaw ah, mais mënoo jël sa kàddu. nangu ah, jàll jàll na na programme am. waaw donc voilà donc bon euh, façon je pense que tele bi li ñu war a def. li ñu yaa tàmm def ñu ngi koy def. bon mm-hmm. démb maa ngi woon Touba euh, donc màggal Touba moom à chaque fois rek naa du feetu murit yi. du feetu catholique yi àddina mm-hmm. bi yëpp la jullit yëpp la mm-hmm. donc je pense que ñëpp ko bokk donc euh, muy muy lu baax ak lu rafet Charles moom xam naa ni ñooy ànd dema alors yow ndindi nga jëm wala. maa nga fa malal malal moom xam naa ndindi ku ko man maa nga fa maa nga fa déjà maa nga fa. <laughs> maa ngi commencé naa màggal. leer gi dugg na. leer gi dugg na. alors Charles yow na. maa gën a leer. boobu non Charles yow kenn du dem di la fi bàyyi. Ah, man kay man <laughs> damaa sopp sëñ Touba. Hmm. dama doon catholique bu sopp sëñ Touba parce que daa am loo xamante ne da def si dëkk bi si wàllu. lu mu gëm mooy yonent ga ak si beneen wàll mm. te këpp loolu ku ko gis fop faw nga sopp ko lu ma si metti rek doon mooy que ku sopp sëñ Touba di nga liggéey mm. liggéeyuñu ku soppa sëñ Touba dëgg ngay doon parce que ay nitu dëgg lañu mm. noonu xoolaat suñu bopp dafa am loo xamante ne dafa bokk si folklore mu am loo xamante ne dafa bokk si dëgg-dëgg te man fa sopp sëñ Touba ah ba di remercier aussi sama suñu jeune frère parce que Pape Djibril Fall lu mu fi war def léegi mooy humilité reporter mm-hmm. euh, c' est vrai que journaliste mun nga wax say analyse def say commentaire def ak yu bëri mais lu mu def lii léegi mooy le métier à la base mm-hmm. reporter tànku neen def ko lu bëri loo xamante ne je le remercie beaucoup pour ça alors commissaire sa wàccaayu màggal sant yàlla bu baax a baax wàccaay bi mu ngi nii maa ngi remercier ñu jot a intervenir yëpp màggal gi sunu alal la ñun ñëpp. Hmm. sénégalais africain. donc waajtaay bi da ngay waajal sa bopp waajal sa njaboot donc yàlla na suñu borom yóbbu ci jàmm. ñu fekke ko ren fekke ko ay at yu bëree bëri bëri bëri. sëñ Touba c'est un patrimoine universel. et je crois que bis bu wootee ku nekk ñun am nga devoiru dem. ñuy xaar nag ñeneen ñi nga xam ñooy dalal nit ñi. Mm. ñu yaatal nu ba suñu ñëwee mën a dal ci ñoom yàlla noonu yàlla jógu ci loolu. yàlla na ñëpp dem ci jàmm dikk ci jàmm. indépendance Sénégal indépendance nañu incha allah commissaire keneen indépendance Sénégal. Mm. dëgg. Mm. mooy màggalu Touba gi. te nit ku ñuul moom moo fi ci réew alors euh, ñu ñu Babacar. Euh, euh, wàccaay màggal bi yow. waaw d'abord maa ngi maa ngi nuyu ñi ma bokkal plateau bi yëpp di nuyu également Pape Diourou Fall bi nga xam ne. tey moom laa toog place am hmm. donc effectivement ñoo ngi waajal màggal bi parce que xam nga màggal moom dafa nekk événement boo xam ni wax dëgg yàlla euh, dañ ci dañ ciy defar bu baax ay ngëneel kese la donc ñoo ngi koy waaj euh, di ñaan yàlla rek ñu àgg si ak jàmm mais ñoo ngi koy waaj bu baax. yal na ñëpp fekkee euh, te ñu tal ko incha allah ni commissaire waxee ñu dem ci jàmm ñëw ci jàmm incha allah yàlla mën na ko yal ko yàlla def alors balaa ñuy attaquer le vif du sujet encore une fois am xew-xew boo xam ni incha allah ëllëg la te loolu tamit mënuñu ko bañ a wax samedi 17h maître Abdoulaye Wade sept ans après day dem palais de la République. Hmm. Euh, seeti Macky sàll Macky sàll ko invité mu mu mu mu wuyu ji. ah Birima euh, yow laay ñëwaat de ma ne xanaa nag ñoom Umar Sarr ñu wuyu ji woon ca dialogue national ba ñu dàq leen soit dañuy ànd ak moom. seeti bëgg naa leeral ñu. wala dégg naa bari ñu wax ci diggante boobu. il faut ma leeral xaj na ku taalibe na ci yow. Hmm. wax jooju du en dehors ñu nekk président ki nekk doomu aadama ak nekk nanga dafa am lu jiitu ci ñun. mooy ay doomu aadama lañ ku nekk da xool la neex ku ñu am ku jóg ñu taxaw ni man taalib sëriñ Touba laa Macky Sall di magum jëm majeur vacciné dem jébbul Touba ne murit la. Ablaye Wade di mag ku majeur ne Serigne Touba la yaakaar. ñu ñaar taalibe sëñ Mountakha Mbacké yoonu murit am nu muy doxee yoonu murit ndigal. boo ko wàccee bokkutoo ci. ak koo man di doon. murit bu deful ndigal bokkoo ci yoonu murit Ablaye Wade xaj na bu jubóo Macky Sall xaj mën naa am neexu ko sax. mais mën naa am neexu ko ah. Mm. Macky naa am aussi woon jubóo. waaye daa am lépp doole mooy ndigal te nag bu sëñ taxaa jiite jilife yàlla may ko tawfeex mu jiite ñaari kilifa yu toll nii mu ñëw jiit julli jumaa ak ni yàlla wax ci julli ak yërmande nit imaam. mais fekk ñaar taal yoo xam bu ñu rombee du nuyonte bu leen jubaloo bu baax lan la ma lan ma def jataay boobu yéen tamit. Mhm. léegi ay murit lañ jëfe nañu ndigalu Serigne Touba ñu ngi koy jëfe ku ca wax da ngaa mais ay ndigal la doxe muy Ablaye Wade muy Macky Sall ndigalu Serigne ay murit lañ yoo xam ne ñu doxe ndigalu Serigne Touba. maintenant nag ay président mhm. ku fi. fii mu bu fi dee yaakaaroo président Serigne Touba nga yaakaar muy Macky Sall mi yaakaarul nguuram gi Abdoulaye yaakaarul nguur Serigne Touba la yaakaar nag kon ku yàqal Sëñ Tuubaa di nga digal Sëñ Muntaxa Mbàkke tey taalibe Sëñ Tuubaa lañ def amul benn problème ah, amul commentaire deux taalibe lu seen sëriñ ne leen te juboo moo moo li rafet ñaar ku fekk jullit bu fekk ñaar ñu réeroo nga jubale leen mais loolu nga ko mën a ab sëriñ Sëñ Tuubaa nag Sëñ Tuubaa kay jàpp ci moom la jàmm commencé fa la des alors Papis la visite de Wade au palais waaw le retour moom tamit non non c'est c'est une reprise hmm. ñaar ñu xamante la man damay ñëwaat si euh, terme yi nga xamante ni moom la euh, sëñ Mountakha waxoon bu muy bu muy euh, jubóole président Macky Sall ak président Ablaye Wade xam nga dafa am benn langage boo xam ne c'était très diplomatique. Mm. parce que moom waxul ay waxu ancien président actuel président dafa ne diggante baay ak doom. Mm-hmm. dafa articuler son son discours autour de la paternité entre Wade ak maki Macky et c'est ça la réalité en fait. Macky est un des fils de de Wade spirituellement politiquement donc bàyyi bu wala doom bu jubóotee ak bàyyam wala bàyyi jubóot ak doom on est des musulmans on, on le salue maintenant après que ça ne soit pas benn obstacle pour dëkk bi dox daal bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu cristalliser les choses tënk Sénégal. Mm-hmm. c'est bien beau on a applaudi tout le monde est content mais après ñu tourner loolu. dem à mais au au-delà diggante papa ak doom yu juboo c'est deux chefs de partie yu juboo c'est important parce que li indi seen jafe-jafe le conflit vient de la politique du papa ak doom yu daje ci benn gaale dóorante doom bi bañ a joxe dépense politique moo leen xuloole léegi nag. sëñ Muntaxa juboole na leen avec beaucoup de diplomatie Sénégal réewu jàmm la et cetera cetera c'est la suite effectivement de ce qui s'est passé à Massalikul Jinaan mooy suite bi mais euh, je reste sur euh, li ma gëm mooy seen juboo amul du impacte dara ci le quotidien des Sénégalais mm. ça n'impacte pas sur li ñuy dund du yokk suñuy poos du développe njàng mi Charles. waaw d'ailleurs je pense que il faut être à la hauteur de Serigne Mountakha Mbacké niveau boobu déjà nit ñi war nañ fa nekk muy ñaari kilifa yi. beneen affaire bi mooy dëgg. sénégalais yi ñoo jiitu lépp réew mi moo jiitu lépp. loolu mooy lan mooy que tey boo xoolee suñu secteur privé par rapport ak contenu local parce que dañuy bàyyi tubaab bi ñëw créer fi ay société de droit sénégalais ndax suñuy gars yi duggal leen si biir jëlaat xaalis bi dem seen yoon man loolu moom ma tax a xalaat est-ce que sociale dañuy wax xëy na nag si biir am na loo xamante ne mënul ñàkk mooy waxu Karim Wade mun nañ si wax tam parce que daf si bokk wante si biir loolu man baara yëgoo la nangul moom laa gëmul bokkul si loo xamante ne mooy suma culture. alors Bouba. waaw mais je pense que jaar hmm, y a deux semaines wax nañ si. Mm-hmm. si euh, bi ñuy inauguré Massalikul Jinaan euh, ci di rafetlu li nga xam ne sëñ bi def na ko entre ñaari taalibe yooyu nga xam ne duñu n'importe quel taalibe kii président de la république la woon kii nekk président de la république maintenant mais dafa am dara lu am solo proximité président Ablaye wadd bi ak Macky Sall bii ci lu jëm ci doxinu réew mi dafay tey sama xel man personnellement. parce que euh, Ablaye Wade dafa nekkoon président dem élection sénégalais bi ne ko dañu doyal nañu ci deux mandats dañu jël keneen ñu fal ko euh, dëkk day am opposition day am pouvoir te. Euh, bu ñu convoqué wul émotion parce que man bu may xool président Macky Sall dañ ko voteel sénégalais à 58 pour cent dañ ko jox pour mu dawal suñu réew dawal suñu réew bi moom mooy que mu jox ñu liggéey jox ñu lekk utal ñu sécurité faj ñu def lépp mais aussi il faut qu'on apprenne à avancer pour man pour man président Ablaye wàdd bu amee seeti bu muy seeti Macky Sall bu desee bu bu desee ci ay conseils yu mu koy jox je suis preneur. Hmm. li nga xam ni moom moo nekk ci bopp ginnaaw ñëpp. et ñu basé ko ci li nga xam ni moom la ñu dund depuis président Macky Sall euh, depuis dix ans. Hmm. mooy que pour man aboutissement juboo Abdoulaye Wade ak Macky Sall mooy am amnistie de Karim Wade man. bu ma dagg nag Birima dama da nga wax li nga xalaat nga bàyyi moo nga wax li ma xalaat dama ne dama ne dala artu rek ah, dama commencé dégg ay bruit dafa rëy dafa wax jëre mais maa ko wax du yow yaa ko wax dama ne ci li ma xam seetlu ko depuis dix ans conscience bi Ablaye Wade am su Abdoulaye Wade juboo ak Macky Sall te Karim wàdd amul ci amnistie juboo boobu amul njëriñ fi ñu jëm ñëpp xam nañ ko c'est maintenant qu'on doit en parler mënuma imaginer loolu ah. que mënuma imaginer que si Macky Sall décide de ne pas amnistier Karim Wade man je un Sénégalais bu bëgg sama réew dama bëgg ñu wax ñu seen toogaay bi ak seen gise yi fan la ñuy yóbbu bu ñu yóbbuwul ci amnistie Karim Wade lépp luñ donc ça veut dire que lépp lu ñu ko fi ñu fi waxoon lépp lu ñu fi jëloon décision mu impacté suñu mu nekkoon demande social mun impacté lépp dañ ko jël raxas ko loolu président de la république sax amul pouvoir boobu même su fekkee ni yoon may na ko dañu wax on a parlé de centaines de milliards et de centaines ah de milliards dañoo président Abdoulaye Wade am na 95 ans wala dara man jeune n'ai pas rendez-vous avec le passé je le dis et je le redis président Euh, wàllam weesu na conseil rek la fi mën a joxe il faut que président Abdoulaye Wade génn ci politique gu Sénégal ndax Idrissa Seck mën a avancé ndax Ousmane Sonko mën a avancer ndax euh, Issa Sall mën a avancer ndax ma ma di ñaa keneen on ne peut pas éternellement nekk ci benn ba ma juddoo ba léegi président Ablaye Wade laa xam après Ablaye Wade nekkatul président il ne peut plus se présenter il faut que mu bàyyi terrain bi pour que suñu vie politique bi mu am opposition une opposition forte ça ça lii dafay affaiblir une opposition suñu opposition dafay dafay doit être forte l'État doit être fort mm. te loolu mooy tax dëkk di avancer donc pour man je pense que bu yeggee yemee si ñoom ñaar papa ak doom jooju tant mieux mais ah, pour le Sénégal pour le sénégalais lambda déggoo ma ne la li ma la wax bu ju bu bu bu ci loolu judduwul dina ma jaaxal tale ñu dem Touba seeti Pape Djibril euh, Pape Djibril alors euh, certainement là-bas on est au courant que Wade suba dina dem palais de la République ni ma ko waxee sept ans après bu dee dégg nga ci ay commentaires yan commentaires la et yow tamit si sa bopp lan nga ci xalaat waaw der man li ma ciy xalaat mooy euh, <clears throat> que li am solo mooy euh, que continuité la par rapport ak li xew Masalikul Jinaan ndax bu ñu fàtte ne président de la république Macky Sall keroog ànd na dem gunge ki nga xamante ne moom mooy président Abdoulaye ba këram. xëy na c'est ci ci ci ci ci ci dynamique boobu la ñu nekk ba tey li ma ci jaaxal rek mooy le fait que mu war a ñëw seet ko palais présidentiel ndax palais présidentiel visite officielle yi. ñoom ñoo fay faral di am bu fekkee ne parce que président gis nañ ne pendant longtemps këram Mermoz la daan recevoir ay ganam lan moo tax palais présidentiel ban cachet la ko bëgg a jox lan mooy objet rencontre bi xëy na comme niñ koy defalee gan yëpp comme jugé nañ utile def euh, li nga xamante ni moom mooy euh, communiqué je pense que le président Abdoulaye Wade aussi veut jouer ci affaire bi il veut jouer la carte de la transparence est-ce que c'est lui est-ce que président Macky Sall moom moo ko bëgg loolu xam naa ne au sorti de cette rencontre dinañ ñu wax lan la ñu fa waxtaan ak euh, de façon officielle euh, lan lañ doon xaar ci rencontre mais encore une fois damay rejoindre li Fou Malade wax lépp lu ñu mën di def ak lépp lu ñu mën di waxtaanee li ci ëpp solo mooy la finalité bi muy am mooy la prise en charge des préoccupations et des aspirations des sénégalais loolu moo am solo te man li ma njort mooy Abdoulaye Wade li mu xeex yëpp pour démocratie Sénégal li mu xeex yëpp pour Sénégal egg fi mu egg jàpp naa ne mënut mënut egg daawu ko def te gëm naa ne du ko def comploter sur le dos des Sénégalais donc dama jàpp ne moom. li muy daje ak Macky Sall yëpp pour man euh, lu jëmale Sénégal kanam la jàpp naa ne loolu lañ fay waxtaanee euh, jàpp naa ne du loo xamante ni dafay dem à l'encontre des intérêts euh, des Sénégalais man pour man loolu moo am solo mais encore une fois pour man continuité Masalikul Jinaan la kii demoon na seeti ko kii pour man day dem seeti ko mais encore une fois le palais présidentiel visite officielle la PDS def na communiqué qui demandeur qui a besoin de cette audience-là xam naa ne au sorti de cette audience dinañ expliquer Sénégalais yi encore une fois et c'est important que lépp lu ñuy def parce que dañu am mandat dañu am mandat de Sénégalais der dafay baax. au nom de la transparence ñu wax lan la ñu waxtaanee bu fekkee parce que kenn ku ci nekk légitimité bi nga am Sénégal moom moo la ko conféré sénégalais ñoom ñoo la ko conféré donc pour respect pour le sénégalais nañ ñu wax lan lañ ci tënk ak lan lañ ciy xaar ak fan lay jëlee Sénégal ak fan la koy yóbbu. allez Pape Djibril xam naa li nga sori Touba tax duma ma la bàyyi nga pelloo ak Bouba tey moom dafa mel ni d'accordul ak euh, li nga wax euh, Babacar très rapidement rek. Euh, sur la rencontre Wade. voilà en tant que en tant que acteur de la de la société civile. Euh, du ma mën a def leen lu dul. Mm. Euh, donc di di di apprécier euh, démarche bi parce que ñun moom lépp loo xam ni mën na rendre souple li nga xam tey mooy atmosphère politique bi rataxal diggante. donc loolu nous sommes nous sommes preneurs comme ni ko Papis Bouba ak Malal waxee je pense que il faudrait que loolu aussi. ñu xam ni que am na benn essentiel mooy lan vécu euh, population bi parce que aussi euh, jubo président de la république ak maître Abdoulaye Wade c'est bien beau mais je pense que war nañ mën a dem également ci ci beneen étape mooy xool naka la ñuy def tey ba askan bi en tout cas yeneen secteurs yi nga xam ni ba léegi bon am na ay rëq-rëq wala bokk am na yenn difficultés yoo xam ne population bi ñoo ngi koy dund ñu fexe aussi jéem a jublu ci essentiel boobu beneen aspect bi également je pense que ni xëy bu ñu jugee ci lii aussi dinañ mën a démarrer travaux yi nga moom moo concerné dialogue dialogue national bi mm-hmm. parce que xam nga boobu ba léegi dialogue politique bi moom mooy moom mooy continuer mm-hmm. te askan bi également euh, nekkul rek ay question politique fichier électoral ak leneen ak leneen moom moo leen intéressé donc je pense que ni dialogue national bi également waxtaanee question yi nga xam ne dafa lié à l'éducation à la santé ak yeneen secteurs yi donc loolu am solo la donc je pense que ni bu ñu jógee fii war nañ mën a gaaw concrétiser li nga xam tey moom mooy dialogue national pour que ñu mën a pencoo yenn yenn yenn commissaire vous êtes à la retraite mais war nga am sensibilité politique jàngat euh, ci li xew ci réew mi avec euh, cette rencontre euh, Ablaye Wade Macky Sall demain au palais 17 qu'est-ce que ça vous hein qu'est-ce que ça vous inspire moi je suis un acteur politique mmh. très engagé oui. je sais cela m'oblige à considérer li nga xam ne xew na mhm. je respecte beaucoup tous ces points de vue là mais dafa am fu ñu sës mhm. depuis avant élection 2019 yi ba ci élection yi gis ngeen réew mi ni mu doxe nii je crois que rencontre bi signification bi mu am mhm. c'est que avec l'occasion de Massalikul Jinaan dañu dugg ci benn entrée wu sortie de crise mais il faut que ñun ñëpp ñu mën ko jàpp D'accord, il y a des problèmes sociaux. La demande sociale est là, les problèmes sont là. Les Sénégalais souffrent, tout cela. Mais il faut que politiquement nous libérions. Parce que Réumi de Fatantuon quelque part. Nous avions une opposition qui s'est enfermée dans un comportement. C'est-à-dire, l'opposition est enfermée dans une rigidité. ak li nga qui am intérêt. Mhm. On a vu que, dans cette situation, il y a débouché. Khalifa Sall na Mm-hmm. te blocage la woon le les deux l'ancien président ak kii yegeyoon nañu mm-hmm. loolu blocage la woon mais ça ne veut pas dire que les problèmes sont sont il faut que ñu mën am taxawaay bi nga xam ni daf ñu génn ci crise bi nga xam ni moom moo bloqué Sénégal dugal ñu ci effectivement comme il l'a dit dialogue national bi avancé mais surtout les problèmes principaux yi nga xam ni ñoo jëm ci gérer soxla askan wi ñu mën a jublu ci chantier yooyu jublu chapitre parce que le président Macky Sall a cinq ans de mandat et presque benn at bi jeex na bu mm-hmm. dee ni mu wax vraiment décrispation sortie crise doon laaj léegi ñoom Oumar Sarr man li ma wax dafa am fu ma yem. man dama def ren njort ni ñaari jullit. doomu aadama yu réeróowul leen ci politique. ñu jubale leen mu yem foofu. man foofu man li ma gis fa laa yem pour le moment. mais nag kantaan nag li ko Bouba wax léegi. ñu dem toog ñoom ñaar dox naan pour amnistier Karim Wade bu ñu amnistier Karim Wade dama jàpp ni dama jàpp. ni Macky Sall ah loo ko compte kon xam nga ku ko jàpp daf fekk ne muy wut garab gu lay gu lay faj. <laughs> Macky Sall tout sauf un <laughs> doful de te xam na bu baax dugg ci engrenage boobu fan la ko jëme je pense que loolu man ba loolu jot daal ba ma ma mais loolu daal gëwuma man vraiment non man gëwuma loolu man dama gëm ni rek dañu réeroo woon et puis déjà wax leen wax leen aussi maa ngi dégg yox naan yox naan qui est demandeur rek qui n'est pas demandeur personne n'est demandeur personne n'est nangam a Macky Sall qu'on le veuille ou non mooy président de la République du Sénégal mooy administrateur Abdoulaye Wade administrateur woo donc bu ñu réeroo ab bu dem ba yóbbu ko en malgré tout ça quelqu'un de président de la République dem ba këram na ko sama papa nga Abdoulaye Wade woon ko ne ko sax maa ngi lay seet si nañ bàyyi kii demandeur kii personne seen sëriñ moo leen jubale ñu am dem di waxtaani kii demandeuru kii demande nangam seen waxu sëriñ la ñu topp di ko def ngir yàlla il faut arrêter ça ba Abdoulaye Wade mën na dund li mu dund ba li ko dese nii mën a dem ba génn àdduna te soxlawul Ablaye Macky Sall nag après tout hein yàlla may na ko teranga moom la teranga Macky Sall terangaam jaar sax ci benn bu doon genn ngoon jaar na ko ci Ablaye Wade mais Ablaye Wade terangaam jaaru ci ab Macky Sall eh, non donc vraiment il faut pas ñu dem ci il faut pas ñu dem ci non j'ai pas compris teranga lan non xam nga nag yàlla mooy joxe nit di ko jaar ci doomaadama aadama. Ablaye Wade wax nii. non non non Ablaye Wade nekk le président du Sénégal. sur 15 de Sénégalais. mais woo Macky Sall ne ko yow laa moo tax may la maa yow bokk wax teraangay la non maa yow bokk wax ne ah, déglu li ma la wax. waaw dama ne tant mi ngi yam ci. ñaari jullit yu réeroo. ñu jubal leen ñoom ñaar ñu toog di waxtaan te loolu laa jàpp ba léegi foofu y a pas problème mais kantaan nag ngeen ñu ciy dugal comme ni kii wax ay amnistie yëg di dugg ci loolu. Mm. ma ne ku jàppee Macky Sall ndox fekk na ma wut garab gu la faj. yow Macky wax mm-hmm. man gëmuma dama ko gëmagul. ok ok bii on a compris mais man honnêtement man. là où tu n'es pas clair man Birima Ndiaye. là où mm. xaman xam nañ la. Mm-hmm. xel mu ñaw nga yor. macha allah pour man ah. dans ce cas de figure là. Ah. li ma jaaxal. Ah. mooy dafa mel ni ñëpp dañuy gis li gën a évident. ñu jël ko def ko benn possibilité. non dama gëmul. Mm-hmm. mais du ma de mën naa mën egg. waaw egg mais dama gëmul rek de. non dama na leen lu gën a garaaw li mais gëmu ko. dama ne mais buuba bi na zone poussin lay quoi. <laughs> Ah, la moom laa jógee waaw léegi non en fait lu ma bëggoon wax mooy <laughs> euh, je comprends euh, que c'est très sensible. non non ñun ñëpp dañuy aborder question bi ak beaucoup de retenue. Mm-hmm. xam nga. Mm-hmm. dañ koy aborder ak beaucoup de retenue mais dama ne li may wax mooy li gën a yenu maanaa pour man mooy li ma wax ah c'est pas que li ngeen wax amul de mais nit dina gis écran bi ma di nga jàkkaarloo ecran bi yow mii Birima Ndiaye gis ni ecran la nga ne muy tàkk nga ne tàkkul te fu mu nekk loolu ngay def ndax la óor na ma ndax la man óor na ma ne écran bi xam nga ne mu ngi tàkk tu es beaucoup plus intelligent que ni ngay wax ni da nga yaakaar ni gëm eh, eh, ah, ni Macky Sall dama jàpp ni Macky Sall respecté nañu dama gëm ni dama jàpp ni parce que man gëm ni Macky Sall bu baax gëm ni dafa gëm réew mi gëm ni respecté moo tax ma ànd ak moom. non je je sais mënu ma gëm ne la Macky Sall dafa autour doole Sénégal ak. Euh, Birima dégg nañ li nga wax comprendre nañ ko doole Sénégal mënu ma gëm Charles Faye Charles Faye. on a compris Birima on a compris donc tu serais surpris euh, par une par am par bu amnistie amee. je serais contre. non non foncièrement contre. allez eh eh Charles Charles s'il te plaît vas-y. dafa am euh, Birima on a compris. dégg nañ am buuba fu mu laal buuba fu mu laal dafa am solo mais dafa am loo xamante ne. yenn yi ça relève de l'opinion mooy ku nekk mën nga wax loolu sa opinion sa xalaat moom loo xamante ne day relever des faits les faits c'est qu'ils ne se sont pas encore rencontrés ba jox ñu la teneur de leur de wante sénégalais lu ñuy xaar mooy que ñoom ñaar ñu respecté ñu voilà il faut respecter 16 millions de sénégalais et respecter 16 millions de sénégalais dafa am loo xamante ne boo ko tegee si kaw table ñu xam respect la boo ko fa tegul ñu xam ne baara yégoo la on passe au thème am na sama gis-gis boo xam ni anticiper ngeen ko c'était un peu ça mais bon. lii lii moom lii moom thème la way ah oui il n'a pas xanaa mu waxaat. non il y papa a pas de souci. Ah, en ma bëggoon wax juste par rapport ak. la question la Wade ak euh, président Macky Sall président Macky ak président Wade keroog bi ñu ko fi énoncé annoncé fii. man mhm. j'avais dit que Serigne Mounta Serigne Mountakha moom kilifa diine la moom yàlla si wut ak dox jàmm ak njëriñ. waaw amul ci benn intérêt. Mhm. xarit bi boo xoolee mais président Macky Sall ak président Abdoulaye Wade c'est des politiciens. Mhm. donc acte yooyu ñu posé à Massalikul Jinaan au-delà de l'obéissance. au la de l'obéissance il y a un calcul politique ku nekk def na acte boobu par rapport à un gain bu muy am après je ne maintenant c'est quoi le gain loolu mooy interrogation yi ñuy posé wu yëpp mais président Abdoulaye Wade xamee naa ko euh, résistance xam nga personne ne on ne réapprend pas Abdoulaye Wade on le connaît on a grandi xam nga ak tout dafa dëgër mën a xeex la <laughs> mën a xeex la ku mën a xeex la te je ne pense pas ay ay sans sans intérêt ay ay ay banalité lu amul dara dara mu muy di réconcilier ak Macky dem non je pense que y a derrière au-delà loo xamante ne mënuñu ko parce que on n'est pas dans le secret des mais politiquement parlant il n'est pas possible de poser des actes aussi grands et que derrière amul benn récupération politiquement parlant amul c'est pas possible bon mujj nañ ko def tem léegi <laughs> ñu dem ci tem bi ñu waroon euh, tàmbalee ni mu leen ko waxee